mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen taxawaay di wax rek ni démb f force vive du Sénégal bi nga xamante ne ay organisation yu fasantikoo ñoo ko sëkk ay mouvement citoyen ay euh, organisation de la société civile ay partie politique ay syndicat ay personnalité indépendante ay activiste ak ñeneen ak i ñeneen ñoo ko sëkk démb nag ñu woote ndaje mu am solo le vendredi 12 mai 2023 fële ca place de la nation ndaje bi nag li ko sabab mooy senegale yi génn ak doole taxaw temm ci fulla ci fayda ci li ñu leen xamee mu doon rassemblement pacifique bi nga xamante ni dañu bëgg wax ak Macky Sall mu xam ni benn mbirum candidature bi nga xamante ni mu ngi koy ruumandaat te baaxut ci Sénégal troisième candidature mu teg ko ci suuf ndax mënul jàll deuxième chose nag mooy détenu politique ak prisonnier d'opinion yi nga xamante ni ñu ngi fees ci kaso bi fàttali sax soxna su nga xamante ni mu ngi ëmb ba diis ñu ne ko ràpp ci kaso bi ak beneen soxna bi nga xamante ni tiwaawoon la ne ñuy jël doomam liir wu tooy xepp di ko indil ci cellule bi mu ko fay nàmpale juste parce que dafa bëggoon dox doxu ñaxtu comme ni ko ko charte deyu réew mi muy constitution maye leneen li waral ndaje bu mag boobu nga xamante ni f mu ngi koy woote mooy mbirum élection yi ñu jëm que Macky Sall mu organiser ay élection yu libre yu transparente ay élection yi nga xamante ni du faagaagal benn candidat bu war a bokk ñu jëm ci élection yooyu képp ko war a bokk mu bokk loolu moo sabab wootewu la 12 mai bi di ci woo bépp sénégalais bi nga xamante ni boobu ba tey yaa ngi xeex ngir suñu démocratie ngir àq ak yelleefu doomu aadama di woote aussi fexe ba message bi mu jàll bu baax a baax képp ci yéen ki nga xamante ni jàpp na ni kàddoom war na mën a euh, war na mën a ñaax yenn sénégalais mu def vidéo ca TikTok wasaare ko ngir Sénégal ngir ñépp daje place de la nation le 12 incha allah bu 15 heures jotee na bu baax a baax jaa ngeen jëf merci beaucoup.